amma baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah ñoo ngi sant sunu borom wa taala di sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo def ay jéego ba amal euh, jataay bi ci fan yii wala jataay yii sax lu am solo la ci ndaw ñi ñu jéem a taxawee ay anam yoo xam ne ñoom ñooy taxaw organiser woote ci saytu ko tegal lépp ci yoon su jàllee ñu daje xool la ca manqué bu ëllëgee ñu mën ko mottali ndax loolu mooy tàggat doomu aadama yi ba bu ëllëgee ñi mën a taxawee loo xam ne si lu ëpp solo lii lay doon te terrain bi muy géewu daawatu ila allah kenn ku ci ne da nga am ab cër boo xam ne da ko war a taxawee su kenn bàyyee wàllam wala bu ñàkk koo taxawee nam jaadoo rek su boobaa daawa bi yépp day am lu ca jóg lu ca manqué di leen sant it ci thème bii nga xam ne tànn nañ ko ndax bu ñor la euh, toll nañ ci aajowoo ko lool adduna sax toll na ci dajewaat lépp lu jëm ci wàllu finance ñu jàngataat ko te ñoom ñi ngi koy def sax ñi ngi dajewaat di xoolaat ci wàllu finance yan système lees war a mën a jël ngir àdduna mën a dog yoon woo xam ne yoon wu jublay doon ña dul jullit foofa lañ toll tey te ñooñu xam ngeen ci àdduna li jëm ci wàllu économie ñoo ko jiite gannaaw loolu ñu ngi sant al imam Ali Ndaw ci ardu bi nga xam ne def na ko ci mawduu bi présentation la boo xam ne daanaka bàyyiwul dara ànd ak waxtu wu gàtt bi lépp loo xam ne aju na ci wàllu banque yi la ca ëpp solo ci lu jullit bi war a xam jaar na ca wax ko joxe it ay proposition yoo xam ne su fekkoon ne jullit yi taxawee nañ ko kon saafara lay doon ci jafe-jafe yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy dund muy saafara soo xam ne day jóge ci seen biir ñoom waaye nag la chaque ne loolu lu am ay gàllankoor la al imaam Ousmane tudd na lenn ci gàllankoor yi mu doon yu leer naññ mu di lu mel ne banque yi duñ ko nangu danañ bëre foofu bëre bu bare bari ndax bañ jullit yi am lu taxaw loo xam ne lu jóge ci seen biir la waaye daje organisation bi bu demoon ba taxawee noonu bay taxaw te jóge ci biir jullit yi ñu gëme ko noonu di ko taxawal kenn da ca dul mën dara ndax mëneesut a xeex ak ñëpp mënees naa xeex ñaar ak ñett ñëpp moom mëneesut a xeex ak ñoom su ñëpp àndandoo organisé organisé seen mbir ko ci wenn yoon kenn mënu ñëw bokk ci kay wala nga jóg ko yow su bopp beneen bi mu tudd muy li jëm ci wàllu maandu tomb bu mag la bu mat a bàyyi xel muy fan la ñuy jaar ba askan wi ci seen jëmmi bopp ñu taxawee place bi nga xam ne jullit foofa la war a nekk muy ci wàllu maandu loo moomut nga ba ko fa waxuma loolu waaye jël dem ba weesu ci loo moomut nga ba ko fa waaye fooy jaar yow mii ba mën a fàggu ba jariñ ñeneen ñi foofu ruux boobu fan la jaar ba nit ñi di ko noyyi mu mel ne ngelaw nga xen xam ne kenn ku ne li ngay xalaat da nga koy xalaat ci say moroom koy xalaat ci moroom li may am fan laay mën a jaar ba mu jëm ci ñeneen te xam ne kat suñu borom tabaraka wa taala jëm ci wàllu alal noonu la ko tëre maanaam qadiyatul intaaj ci lislaam qadiyatul intaaj dafa am irtibaat ak qadiyatu riayatul fuqara mooy kenn nit ku nekk ku ne ku am xel ku ne bëgg dara sa xel a ngi ci fooy jaar ba wut alal wala déet fooy jaar ba am alal te borom bi tabaraka wa taala ku am alal ku ne tey jullit faaw nga bàyyi xel ñu ñàkk ñi xool googu jokkaloo kon jullit bi mbiram itteem du mooy man fan lay jaar lislaam ni mu wàllu finance daf ko sellal ci anam goo xam ne mbirum jaamu yàlla la moo war a gën lépp bi muy xëy di fàggu ji alal ji nekkul ci xelam fan laay ame lu ma dunde man sama njaboot waaye weesu na foofu fan laay amee lu may dunde man ak njaboot gi waaye fan laay jaar ba ñii may dajeel ñi amuñu luñ dunde itam ma mu leen ma mën a participer ci jàppale leen yàlla xam na ne jullit bi léeg-léeg mu gis yenn taxawaay yoo xam ne ci ñurul jullit day wax ne lii xaw ma fu ñu ko sàcc waaye jullit a ko moom waaye fu jaar ba ñooñu jël def mel melokaan wi imaam Galaajo doon wax léegi dem naa ci benn dëkk boo xam ne du dëkku jullit ñu nekk ci benn restaurant gis ay nit di dugg ñii ngi laaj café ñii di laaj palaat yu ñuy lekk ñenn ñeneen di laaj lañ soxla ma gis ku dugg laaj ñetti palaat ne benn bi lay jël ñaari palaat yi solidarité xawma luy loolu ma gis ñu bind ci benn tableau électronique nangami palaat solidarité yoo xam ne moom tableau baa ngi affiché loolu moo ci nekk maanaam nangami palaat am na fi yoo xam ne solidarité la nit ki day ñëw ne jaay ma ñaari kaasi café benn bi ngay indi beneen bi kaasu solidarité la ñu daal bi bind ci tableau électronique bi ne am na foofu kaasu solidarité bu keneen dikkee defaat noonu day ma jënga gis tableau bi nangami palaat yooyu solidarité ngi fi nangami kaasi café ngi fi yoo xam ne solidarité nangami butéeli boisson ngi xam ne solidarité ngi fi nu ñuy def su miskin ak see faqir su amul dara waxtu añ jot bu dikkee day xool place ñaata place solidarité fi nekk day dikk toog loxoy keseen borom restaurant bi ñëw mu ne ko palaatu nangam laa soxla waaye ci solidarité bi lay doon ñu daal di indi benn palaat jox ko mu añ comme ñëpp benn chiffre daal di rob te chiffre bañ bindoon ci tableau bu ñu yëg la benn palaasu solidarité ba dem na bu noppee ne jox ma benn kaasu café ci solidarité ñu jox ko kaasu café mu naan bu àggalee jóg dem ma toog di xalaat ñii fuñ jaar ba jël li ba yóbbu ko bàyyi jullit yi waaye ma wëlbati ko xool itam nag sun askan ku ko fa defoon tey ku ko fa defoon maanaam ñaata nit ñooy ñëw xaalis nekk ci seen poche ñi ñëw ne damaa soxla place place solidarité foofa la yëpp ya nekk kon éducation bi ak defar doomu aadama yi am na lu mu aajowoo sun askan wii dafa aaje xoolaat liggéeyaat tëggaat lu tax doomu aadama ci sun askan wi ñu mën a defar benn cabine téléphonique ci mbedd mu ñëw di def ay pexe yu mën a def ba téléphoné te xaalis du dem keneen ñëw di def pexe yu mën a def ba xaalis ba nit ña téléphoné mu ne ci biir cabine ba nan lay mën a def ba yóbbu ko benn table publicitaire nit ñëw kuy liggéey ci ay weñ dajji ko yóbbu dem liggéey ci ak satala wala dara ñëw di ko jaay askan wi toll foofu mbokk jullit yi sore na ak fii imaam Alioune Badara Ndao di waxee sori na ko fa ngay mën a convaincre doomi aadama yi dox nga di leen gis nii ñii nga xam yow bañ mën a gëm ne kenn ku ne mën nga boo xëyee génne cent franc ci sa poos joxe ko ne lii dama ko joxe ngir yàlla mu jaral leen ko ñu xam ko sore nan ak foofu fi mu kon liggéey bu rëy des na beneen bi ci des ma koy dolli imaam ci ñaari yu tudd muy taxawaay bi nga xam ne banque yi xas nañ ko yéene danañ ko taxaw ci xeex lu mel noonu waaye jàpp naa ne boobu xeex bu ndaw la mënuñu ci dara su fekkoon ne julli di bennoo nañ beneen bi ci des mooy wàllu maandu te boobu kooku laaj na liggéey bu rëy rëy ci defar doomu aadama waaye beneen bi ci des mooy bennoo gim laaj bennoo gim laaj sun askan muy askanu Sénégal tey man de gis naa ku bari ci àdduna waaye nii ñu séddalikoo ay pàcc pàcc fu nekk as kuréel nekk fa kuréel su nekk jàpp ne yow dong fa nga nekk foofu la yëf ya nekk ku dul yow ku ne sab noonu la wala bokkul ci yow ala kulli xaal loolu di gisuma ko feneen soo taxawoon tey ne dañoo fas yéene jullit yépp kenn ku ne ñu jël ci yow cent franc tey dix millions yi comme ni ko imam waxe pour ñu mën cee am trois milliards boo jógee taxaw fa ñuy jëkk xool mooy kooka fu mu bokk ñu ne ah kooka kat tariqa sàngam la bokk wala kooku kat amul tariqa kon seen mbir la bëgg a topp topp kon mbir ma am na yeneeni pakk yu nekk ci yoon wi woo xam ne su fekkee ne danoo toog di xalaat rek la war a mën a defar wallahi li mu waxul mën a defar la waaye nag àggagun ci am na ay jéego yoo xam ne ci tarbiya muy yar nit ñi jàngal leen tazkiya leen na yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon def saxaaba yi ba seen yëg-yëg bi gën a rëy ci seen i xol mooy yëg-yëgu lislaam leneen luy ñëw door a ñëw gannaaw bi waaye nit ñi bi ñu leen gëmloo yeneen nit ki lu gëm lu ne jaral na ko lu gëm lu ne lu gëm jaral na ko gis ngeen ay kuréel taxaw nañ fi yoo xam ne li ñu réalisé ci wàllu alal kenn xamul lu toll li ñu wàllu li ñu ci wàllu alal kenn xamuñu toll ci turu kuréel booba lu ko waral mooy loola lañ gëm kon soo fexewoon ba nit ñooñee lañ gëm ñi gën koo yaatal ba mu doon lislaam te kese nag yoo xam ne amatul gàllankoor digganteem ak beneen jullit benn jullit amatul gàllankoor diggante benn jullit jullit yi rafet raxas seen xol yi ba tawxiid nekk ci raxas seen cër yi seen doxukaay yi ba sunna nekk ci raxas seen jikko yi ba sell nekk ci bañ mën leen wóolu ci wàllu maandu te ni ko imaam waxe su boobaa jéego bu mel ni day yomb lool day yomb lool tadi nag li nga xam ne moo dal suñ askan yi dafa dafa métti wetu diine gi boo xoolee dellu gannaaw gi moo jur lépp waaye leneen daf caa dolli kooti muy seeni noon bañ leen tàmbalee xeex dafa yàgg te xeex bi dafa doon xeex boo xam ne dañ ko tegal plan bu tegu ci yoon surtout lu aju ci wàllu finance ak alal plan lañ ko teg boo xam ne li muy firi yëmut ci Sénégal rek waaye réew yi néew doole yëpp raxas la fa nekkoon ba mu jeex tàkk ba dootuñu dese dara ci alal fi mu nekk lii réew yi di dund di jiiñante ñaan ñu ne defe ña ca dese yóbbu xaalis ba turi turi chiffres yu rëy yi nekk fi te lu génn rek daal dina mes duñ ko gisati ñu defe ne ñenn ñi dañ ko yóbbu wala dara fekk na système bi ni mu tëddee banque yu mag yi nekk ca kaw ñu naan la ay banque mondiale ak ay FMI sunduq naqd dawli ak yeneen organisme yu mag yooyu ñooy ay ay njuuma yu am kattan yoo xam ne dañoo bóof ci kaw kaw état yi labal leen ci ay bor ba nga xam ne amatuñ yenn pexe dem nañ ba àgg état bi sax am liberté ci biir askanam di def li mu bëgg loolu daa koy jafe dañuy ñëw di ko tëral ay plan defal lii yokkal lii defal nii yokkal fii yokk yi di jëm kaw nit ñi di yuuxu ñu defee ne état bi moo toog rek di def lu ko def fekk lu mu tëyut la ay plan yu ñàng lañ ñu tegal ca kaw loo xam ne pour man cee jógewaat laaj na liggéey bu dëgër boo xam ne ci jullit yi lay jóge ci askan wi ci seen jëmmi bopp foofu lañ ko yaakaare waaye nag yaakaar wuñ ko feneen benn waaye daf ci joxe misaal mu ne sax lu lu am la sax nee na pour wane capitalisme ni mu tëddi ci wàllu alal ak réew yu mag yooyu ni ñu jëriñoo réew yu ndaw yi ne dañoo jàngal nit ka formé ko ci wàllu capitalism ba xam ba mu dégg ko ba wax ne dégg na ko ñu yebal ko ci benn village ne ko demal boo demee nga nga appliqué fa li nga jàng nga pratiqué ko mu ñëw ci village bi fekk fa nit ñi nekk ci seen jàmm ñu ngi bay seen mbay muy ñor ñuy lekk yor seen i yor seenu jur di sàmm nekk ci seen jàmm yor seenu penc di toog di waxtaan waxtaan jotee mu seen alal yi fi mu yor tuuti ci xaalis dikk ne leen dama soxla lëf yuy jaay lapin wala wala leefar dara la defe dafa ah. wéjëre Cheikh mooy lapin mooy lapin waaw mu ñëw ne ay lëg la soxla ñu xalaat ñu ne ko ah, kër diw de moo fi am moo fi yar ay lëg mu ñëw ci diw moomu ne lëg loo koy jaaye mu ne ko benn ñaar téeméer mu jënd la fa nekk lépp yóbbu ne ko bu ëllëgee boo gisatee kuy jaay sax danaa ko mën a jënd lu ëpp lii daa di dem diw dikk ne ah mbirum lëj kët mel na dox na nett li ko gaa yi ci pénc mi ne jënd na li ma yoroon te nee na bu ëllëgee su gisatee yeneen dana ko jënd lu ëpp loolu ah waa ji daal di dem ci benn luuma fekk ba lëg yañ fa doon jaay yëpp mu jënd ko moom moom waa jooju jaayoon lëg yi dikk ak sareetub lëgam bu fees del teg waa ji del siwaat lëg yëpp mu jënde ko benn bu nekk mille cinq cent ci misaal waa ji dikk ne waa ji li mu wax dëgg la bi mu daataan dem nee na ko soo amaatee danaa ko jënde lu ëpp lool bi mu waxee loolu nag waa dëkk bépp génn kenn ku nekk ñu topp luuma yi luñ am ci ay lëg rek ñu dajale indi waa ji dikk yépp mu jënde ko deux mille cinq cent yëpp mu jënd ko deux mille cinq cent ne leen nag su ma dellusiwaatee li ma ko jënd dana ëpp lool gaa yi kon mbir mi koy bu jëm ci liggéey te bàyyi mbay mi ñii jaay seeni sareet ñii jaay fas yi yoroon ñii jaay seenu jur ñi topp réew mi fuñ ci sublëg nag jënd jënd jënd jënd ba lëg yi jàpp ne daal liñ dajale ci lëg moom waa bu delsee du ko mën a jënd mu delsi bi mu dikkee mu jënd lëg yépp quatre mille francs ne leen bu ma delsee lu ko ëpp laay jënd defeetuñ dara luñ jënde ay lëg fi jaayoon nañ seen marchandise waaye jooju nag lëgam yim yoroon bari na léegi mu yebal ay nit ci luuma yi di leen ko jaay lëg yëpp benn quatre mille francs gars yi ne ah waaye comme que bu del si lopp quatre mille francs la mën nañu jënd li ñu amoon lépp ci xaalis lañ dese woon ñu jënde ko ay lëgi quatre mille francs waa ji bàyyi bañ dajale waat seen i lëg ba del ba toog ci kër gi nga xam ne kese am ci dëkk bi mu ñëw nuyoog ñoom fekk leen ca penc ba ne leen lëg yi day ma tax a jóg waaye bi lëg nag dafa daanu daanu lu muy jar léegi mu ne la ma ko jëkkoon a jënd mille francs ñi toog amatuñu fas amatuñu jur amatuñ lenn lu ñuy def yor léegi kese te doyewuñu ko dara boo ko xoolee misaal la muy dund moo xam ne crise financière bi nga xam ne ci àdduna moo ciy daw lu mel nii moo ko ràbb moo ko ràbb dañ lay yoxal nga indi la nga amoon la nga gën a fonk nga di ko def di ko def ba mu yàgg nga dem ba àgg ci yëf ya taxaw nag amatoo foo jëm lañ bàyyi ci say loxo xamatoo noo koy def day dem ba ci biir mbay yi léegi ñu imposé la ngay bay loo xam ne xamoo li ngay bay yow comme jëm da jaar ci àll bi gis nit ñi ñuy bay yoo xam ne mosuñu ko essayé sax dañu leen bay leen nangam rek bu ngeen noppi dana baax te am na ci yoo xam ne musiba la ndax boo ko bayee ba àggal moom du am ngooñ amul ngooñ mooy jox sa jub te xamagoo luñ koy jënd bu àggee da ngay taxaw ne tóoj ci rek liñ la ci jox baax na coono bi nga demal kon liñ bëgg a wax mooy adduna tey ci wàllu économique foofu la xeex bu mag bi nekk waaye ñi jiite woon xeex bu mag boobu di te plan yi ñoom ci ñoo dem ba gàtt tey gàtt delsiwaat aaja ku leen xett li ndax dañoo dem ba liñ doon ji tuuru ci seen kaw dafa dem ba tuuru ci seen kaw mooy li lislaam gënoon a tere ci wàllu njaay ci doon conférence doon ko junj léegi muy wàllu riba ak bunt ya ci aju ñu ngi li ñu tudde ay xarar ak ay jihaalaak mbir yoo xam ne dangay ngay jaay loo gisut yooyu ci lañ dem ñoom ba lab ca ba àgg ci foo xam ne dañoo dem ba mënatuñoo bañ a wàññi ko yàlla xam na ne eh, li imam junj léegi dëgg la banque bu amul problème fii toll ci Europe wala Amérique bu dul moom rek xamal ne banque islamique la loolu moom gis nañ ko boo fa defee demee li fa nekk ci ay banque islamique léegi ëpp na trente cinq banque islamique ci biir Angleterre yoo xam ne mbir mi fa la leen fekkoon waaye ñoom yëguñu ko lu tax mooy l'islam organise organisation ci wàllu finance daf ko teg ci ay principe yoo xam ne lépp dafa leer kenn du jaay nit lu mu gisul kenn du jaay nit yoo xam ne da nga ko cay nax lu bon nekk ci biir nga won ko ne ko ci kaw la nekk kenn du jaay ak nit ci wàllu riba yooyu yëpp boo ko boolee day dellu ci aklu amwaali naas bil baatil lekk alalu doomu aadama ci ak neen lislaam da koo tere moo tax banque bu fekkee ne dafa tegu ci yoonu lislaam ay nax da ca dul mën a am banque yi ñu tegoon nag bi ci dox ci capitalisme bi dafa dem a dem ba nax yi ci boppam moo ëpp doole leneen lu dul lool dafa dem ba ña doon naxe dem ba nax seen bopp te yëguñu ko joxoon naa ko mbokk yi ci misaal da ngay ñëw luyee jënd sax kër parce que da ngay toog fu mel noona euh, beneen misaal la ci crise bi li ko indi dëgg dëgg dëgg seen digganteeg location yeeg kër yeeg njaay mi ngi mel noonu da ñëw nekk benn waay boo xam ne liggéey bi nga yor sa salaire cent mille francs la ci misaal ñu ne la ah yow de mën nañ laa lebal kër kër goo xam ne sa kër la da ngay ñëw sañ ci dëkk bu weer dee nga fay cinquante mille francs ah loolu neex na de wala yaa ngi am cent mille francs par weer loolu boo ci doon dajale di jënd kër kañ nga koy am kenn xamu ko ñu ne la kër a ngi bu pare tabax nañ ko ba mu sotti kaay dëkk bu weer dee fayal cinquante mille franc nga ne loolu mën naa ko ñu ne la nangami at nga koy fay yooyu yëpp yow boobu itteelu la nooy dëkk ci kër nga yow te weer dee doo génne location di fay boo demee bay signé nag contrat ba fa la ñuy def ay mbind yu sew ci suuf yoo xam ne ba wëttuwut foofa la mbir di nekk mooy dañ lay yëgal ne kër gi lii ñu la ko lebalee mat na dix millions waaye nii nga koy fayee cinquante mille francs ngay fay par weer waaye dix millions yi am na intérêt bu ci war a tegu boo xam ne cinq pour cent la ci misaal waaye nag intérêt boobu doonut lu sax intérêt boobu taux d'intérêt boobu day soppiku nga ne lu koy soppi ñun la ñaari yëf am na lu ñu tudde banque centrale saa bu ñu yëkkatee seen intérêt intere banque yëpp dañuy yëkkati ko ndax ay bànqaas lañ ci moom su boobaa day maanaam 5 pour cent yi ñu la wax su banque centrale xëyoon ne taux d'intérêt kat àgg na léegi 7 pour cent su boobaa yow it 7 pour cent lay soppi loolu benn benn tomb beneen bi ci des ñu ne ko li tax doon sax mooy cinquante mille francs yi nga war a fay su weer dee bala cinq jot te indiwoo ko loolu un pour cent day daal di tegu ci taux d'intérêt bi du doon doon ñaari temps yoo xam yaa ngi ci diggante bi waaye da nga naan loolu moom garaawul ndax man lii moom mën naa ko fay da dëkk jël sa kër dëkk diir bu gàtt ngay dox ñu ne la banque centrale day yëkkati ne taux d'intérêt bi kon léegi nekkatul cinq pour cent mais pour cent yokku na ci da ngay mujj dem ba mu yàgg ñu kon kat soixante mille la léegi ah, waaw baax na dem ba mu yàgg ñu la banque bi yëkkatiwaat na intérêt bi àgg na dix pour cent léegi ila kon kat mbir bi dana yëkkati ko waat soixante quinze cinquante mille yi àgg na soixante quinze kon sa salaire li ci bëgg a nga dem ba mu yàgg banque bi yëkkatiwaat nga ne loolu de mënuma koo fay gi yoon weer wi dee la cinq jot indi woo ko ñu la mbir ma yëkkati ko na kon ful nañ ko da ngay dem ba mu yàgg liñ lay laaj par weer ëpp na sa salaire su boobaa nooy def mooy duutoo fay soo fay nag fay ga daaj tàmbali su fekkoon mbir mi foofu rek la yem kon lu simple lay doon ndax nit ki dem na ba mu yàgg mënatu la fay dañ koy génne rek mu dem ñu jëlaat seen kër di noonu rek la kon kon bu yomb waaye du noonu rek fekk na kër googi bañ la ko lebalee crédit bi nga leen yoreel mu nekk dix million séddale nañ ko ñoom li ñuy tudde ay ashum maanaam ay action wutal ko ay sanadaat maanaam ay bong yoo xam ne dañ koy jaay nit ñi maanaam kër gi dix million yi liggéey nañ ci lu mat junni bong yoo xam ne benn bu ci ne dañ koy jaay nangam ñoom banque bi nit ka bu jëlee bon boobu da koy leb moom dem banque bi jox ko xaalis bu ko jëlee ci banque bi day dem déposer ko fu beneen banque jël foofu xaalis bu ëpp loola di ca avance fii dem di liggéey fële nga xam ne kër gi mën naa dem ba valeuru këyit wi mu yor ci kaw suuf si tey ëpp na téeméeri million te fekk kër gi dix million lay jar fa mbir may feeñe mooy waaye ji nga xam ne ñoom ñépp moom lañ doon séentu soo demee ba mënatu la fay mu taxaw foofu la yëf yi feeñ ñoo na ah, kër gi ko la yoon mënatu la fay li ñuy wax mooy action yi nga xam ne moom la nit ñi jëndoon dañuy xëy xëy ne leen yooyu yëpp daanoon la mënoon a jar mënatu koo jar xaalis bi ñu leen fayee nekkatu fi banque yi ci seen bopp xaalis nekkatu fi ñu taxaw su boobaa ku doon yaakaar ne sa xaalis bi nga ca banque ba yoroo dara nit ñi def dañuy dem ba mu yàgg banque boobu moom fayit na daanoon ne Amérique ci semaine bi passé seen ñeent fukkeelu banque ñoo tëj banque yooyu suñ tëjee musiba la ci seen économie bi yépp ndax fi mu ne société yi gën a rëy nga di leen dégg ñuy liggéey nangami million ci ay oto société yi amuñu xaalis société buy liggéey bu mu mën a doon ci wàllu industrie yi xaalis boo xam ne dañ koo denc di ko yëkkati di fay waaye ci banque la dem chaque mois la ñu jële ci banque ci la ñuy jënd seen matière première bi ñuy liggéeyee ci la ñuy fay ñuy liggéey su weer wi dee la ñuy jaay ñu jël ca fay si banque bi jëlati lu mel noonu noonu la ñuy def suñ ne banque ba taxaw na nag kooku li muy firi mooy société yëpp dañuy ànd taxaw benn moo tax firi boo dégg la ñu naan général motors dañuy jékki-jékki benn société ñu xëy entreprise ñu ne leen nangami junniy nit yebal nañ leen ne leen amatu leen fi ab liggéey dàq leen ñu dem parce que mënatuñ leen fi seen loolu nag moo gagal waa àdduna bis nekk tey bañ jël si ne di ko wax suñ ko waxul carrément ci lislaam lañ war a dellu it da dégg ñuy wax lu ko nuru lool am na ku mag ci Europe fan yi déclaration bi mu def bind ko ci benn journal boo xam ne ci wàllu économie lay wax daf ne maanaam taux d'intérêt li fee wàcc li fee wàcc wuñ ko ba mu agsi zéro ah yi ñuy jël ci nit ñi ñu wàcce ko ba mu ñëw ci deux pour cent suñu économie bi du dox taux d'intérêt bu assis zéro mooy lan mooy bàyyi riba mooy bàyyi riba mooy intérêt amatul kon kay wax ja mooy kon suñ bàyyiwut riba taxe yi ñuy jël ci nit ñi deux pour cent mooy lan mooy asaka asaka deux virgule cinq pour cent la ci ku dem ba am ci ku dem ba am kon mbir mi dem nañ ba yëg nañ ne àdduna gëlëm nañ ñi leen war a mën a génne bis nekk tey nag mooy jullit yi rek waaye ndax jullit yi nekk nañ ci maqaama boo xam ne mën nañoo jël initiative boo xam ne moo mën a womat nit ñi tey kilifa gu mag gu dëkk Malaisie ñu koy wax Mahadir Muhammad nit ku am solo ci ci diineem ak ci wàllu ittewoom ci wàllu nu ñuy tabaxe am réew ci wàllu maandute ci wàllu lislaam benn congrès ci màkka bu ñu fekkee boo xam ne euh, dafa jëmoon ci wàllu économie banque islamique de développement ñoo ko doon organisé moom dafa taxaw am na ñu fa teewoon ñu bari ñoo xam ay njiiti gouvernement la njiiti gouvernement lañu daf ne leen problème bii ñuy dund tey génne benn document boo xam ne nee na ci fukki at ci gannaaw laa ko déposé woon ci yi pour ne réewi lislaam yépp nañ ko yëg mooy réewi islaam yi nañ delloo si waat ak diinaarul islaam yi te bàyyi sukkandiku gi ñu sukkandiku ci dollar ak leneen te delsi ci la benn monnaie boo xam ne réewi jullit yépp ñoo koy bokk bañ a sukkandiku ci kenn mu ne leen su fekkoon ne loola defoon nañ ko booba kon da nga ni fii tey ñi jaaxle bu ñuy làqu ci noonu danañ xam ci lan la ñuy làqu te bu boobaa ci suñuy condition la ñuy dox waaye ñàkk gaa def mooy ñii dem nañ ba jaaxle te amuñu fuñ làqu li wér mooy amuñu fuñ làqu parce que jullit yi ci seen jëmmi bopp ñoom nekkuñu ci position boo xam ne mën nañoo womat kenn fi mu ne fawda bi ñu gis fii muy énergie bi ñuy dund fii di ko gis nit ñi ñu am njàqare lool ci ne li fekk tabaxaatuñ ay ndaw ak ay mag yoo xam ne delsiwaat nañ ci siraatul mustaqim xam alal ko rapport bi nga xam ne am na ko ak imaanu nit mu yëg ne àdduna ci boppam tax koo jóg waaye day fàggu àdduna di ci wutaale àllaaxira def ko moyen li fekk jëmuñu ba àgg ci am nit ñu mel noonu jullit yi ci seen jëmmi bopp ak fu ñu mën a nekk du solution bi ñoo koy dund ci kanam nit ñi ñu gis ko muy nag mbir mi ni mu demee dëgg-dëgg mooy li Ousmane junj jazaahullahu xayran muy fonds solidarité bi nga xam ne mbokk yi jiim nañu góorgóorlu ba taxaw ko ak euh, fonds de la zakat bi nga xam ne itam mbokk yi góorgóorlu lañ ba taxawal ko ñaari mbir yooyu mbokk yi ko taxawale seen xalaat li ko andi mooy ñu yëg ne mbir mi daje di wax nii rek sottalu waaye nit ñi il faut ñu won leen dara il faut ñu def dara won leen ko ñu gis mahadir boobu ma tudd premier ministre la woon ca Malaisie bi mu dikkee dafa fekkoon am réewam jafe-jafe yu metti la ñuy dund premier ministre ba ko jiitu woon ba mu fa jógee mu ñëw toog palaasam bi mu toogee bis bi mu njëkkee toog bind na ko ci ay dañ koo indi benn livre mu ne livre bi lu ci nekk ñi ne ko réalisation yi gars yi jiitu woon dañoo bëgg nga yër ko su ko defee mën a xam fan ngay tàmbale ak lan ngay def nee na mën leen fab leen seenu téere du ko ubbi réalisation ci boppam kenn du ko jànge ci téere ci mbedd mi nga koy jànge réalisation ci am réew nee na booy dox ci mbedd mi foofa nga koy jànge te jàng naa ko foofu li mooy su ma amee fii diir bi ma am ma fii ku jaar ci mbedd boo xoolee làmp yi da ngay jàng réalisation yi boo awee ci tëli bi jàng dem ca ba jàng ko foofa limal leen ay yëfi yëf nangam nangam ba mu bi mu fa amee fukki at bi muy bàyyil boppam parce kenn naru ko woon a wàcce bi muy bàyyil boppam réew mépp dañoo daje di jooy ne kii wër sa dem parce que tabax na fa loo xam ne kenn jàppul ci dix ans kenn ki nga xam ne mun tala mooy lislaam ak pas-pas ak gëm ne njub dafa war a am koom-koom door a ñëw kooku mbir mi da koy yomb lool Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala ñaata at la am soppi koom-koomu réewam ñaari at ñaari at te ba mu fay ñëw de la mu fa fekkoon demewul noonu wax dëgg yàlla waaye bi mu ñëwee nu mu def fu mu tàmbalee ci boppam ak ci njabootam ak ci ñañ doon tudde buur yi ci ay jamonom ci ñoom la tàmbalee bi mu dikkee fekk na soxnaam rek faatuma li mu dencoon ci or kenn xamul nu mu ndax doomi buur la sëtu buur la lim doon ci ñoom ci ay or kenn xamul nu mu toll bi mu agsee ñu ne ko yow yaay amirul muminin tey ba mu jaar fa mu jaar ba agsi dellusiwaat këram daf ne ko génne li nga am ci or lépp mu génne jal mu ne nañ ko sol ci saaku ñu sol ci saaku mu ne lii nag mu ne ko baytul maal lay def lu tax mu ne ko moomoo ah maa ko doon ne ci sama baay mu ne ko sa baay moomu alali jullit yi foofa la tàmbalee ci moom yóbbu baytul bi biñ ko falee yëgal ko ne ko yow yaay amirul muminin ndax ci leetar la ko Suleymaan def Raja ibnu Xaywa mi nga xam ne moo sosoon rëkk ci Suleymaan doon itam ku baax di borom xam-xam nekk secrétaire wala directeur de cabinet moo xam pour luñ koy jox moo sosoon ci moom rëkk daal bi Souleymane demee ba xam ne day faatu daa bind leetaru ki ko war a wuutu moom def ci turam Omar ibn Abdul Aziz gis Sule Raja ibn Xaywa di waa koy dem ak mu ne ko ah, yaa ngi dem ci amirul muminin ak ñëw de lu xew mu ne ko amirul muminin dafa nar a dénkaane nit ku koy wuutu mu ne ko mbaa tudd mu ne ko xaw ma ci dara génn am ñeneen ñu koy dab naan ko mbaa mën mu ne leen xawma ci dara biñ demee ba wóor ne amirul muminin faatu na bañ denc ko ba àggal ñëw ci jàkka ji raja ibn xaywa génn leetar bi ñu dajale jullit ñëpp mu jàng ne omar ibn abdul aziz lañ wuutal omar ci jotaay boobu dafa xëm ndax métit ak am lu ko naqari bi mu xiqee daal di ne maa ngi leen yëgal ne mbir moom yi ñuy wax dañ ma ci tàgguwut ginnaaw tàgguwuñ ma ci nag ba ma joxe ci sama xalaat maa ngi yëgal mboolem ñu fi teew ne wàccewaat naa sama bopp jullit yi nañ tànn ku leen sopp mu wutu leen waaye man man maay noo kéeféeru moom yi mbooloo mépp jóg taxaw ne ko yow bi mu demee nag ba xam ne pexe amut ci foofa nag la tàmbalee faw maanaa mel noonu ñu dellu waat politiciens yi xam ko boroom xam-xam yi xam ko imaam yi xam ko ñu jàngat ñoonu bi mu génnee ci jàkka ji ci bés bi nga xam ne ci lañ ko war a jaayante moom nag jaayante bu mag bi mu génne këram jëm ci jàkka ji dañoo indi nag cortège bi nga xam ne moom lañ daal defal amirul muminin ay fas yoo xam ne collier yeeg laab yeeg yépp or lay doon teg geeg yañ laal ca kaw ak xeeti yëf mu ñëw ne lii lu mu doon gis ñu taxaw cortège bi li amirul muminin war a war ak parasol yi koy tiim ak ñooy topp ci moom ak yeneen fas yi nga xam ne ministère yi koy war mu ne lii lan la ñu ne ko lii mooy cortège bi nga xam ne ku nekk amirul muminin yow foo jëm mooy ànd ak yow mu ne bis nekk tey yii cortège moom fii lay yem daal di jël fas yëpp ak la ca nekk ci gànjar gu mu àndal yëpp ne nañ yebal baytul maal trésor lii lépp alali jullit ñi kenn moomu ko ñi jël yooyu yëpp boole ko mu dox ak tànkam dem ca jàkka ja taxaw ci kanam jullit ñi jaayanteeg moom bi mu jógee ci loolu ñëpp ñoo xam ne ay góor lañoo ñi ne ci Abdul Malik ibnu Marwan Suleymaan ibnu Abdul Malik bàjjanam yi nijaayam yi baayam yi ndaw yëpp def leen a dajale ni leen fu fi waay nekk koo xam ne da ngaa ci or bu bari wala alal joo xam ne ju jéggi sa aajo yi bés la na ko andi ndax moomu leen ko ay buur a fi di ko dajale te alali réew mi la ñu dajale alal yooyu yëpp yóbbu ko baytul maal alal daal di dajaloo foofu joo xam nag dal nay bari lool kooku mooy départ Omar ibn Abdul Aziz ci biir lool nag ci la tàmbalee bayt boobu muy baytul maal la muslimin daal di dund nag ci wàllu asak mu def nag benn taamim maanaam benn décret boo xam ne daf ko yónnee ne fépp foo xam ne ndaw lu ñàkk nekk na fa da wuy su fekkee ne dafa amut liggéey ñi xam lu tax amut liggéey ndax dafa lompoñ maanaam daa mënta liggéey amut kàttan wala daa am kàttan te jàngaluñ ko nu muy liggéey wala lan la foofu lañ tàmbali nag asaka yi ñiy jox nit ñi ku ñëw dañ lay jox ci asaka loo xam ne dana mat sa dundu at ne góor góorlul nag ba waxtu bu jël see da ngay génne asaka waaye kat waxuñu ne asaka dañ lay jox nga dem toog sa kër lekk bu jeexee waxtu jotee nga ne naa ñëw jëliwaat déedéet jox nañ la loo ko ne mën naa dund at bul toog di ko dundem at seetal li mën a dund ñetti weer nga teg ko fële juróom-ñaari weer yi ca des gaawal liggéey bu at may dellusi rek fexeel bu bokk ci ñi mën a génne asaka boobu la Omar ibn Abdul Aziz bi at ma daataan dellusi li ëpp ci ñooña commencé di génne asaka baytul maal alal daal di fi dajaloo yoo xam ne bari na ñi commencé nit ñi ku ñàkk ku nekk mënoo liggéey ñu defal la salaire boo xam ne bu weer dee nga jël si ko ci lañ dox ci loolu bam li ñuy tudde faqir ci biir ñaari at yooyu amatul ci biir état Omar ibn Abdul dem nañ ba ne asaka yaa ngi nii gisuñu ku mën a ñëw jël ko kon ma ne ci wàllu l'islam moom amut problème ci alal fan lañ war a mën a jaar ci réew ba développé waaye jullit yi ñoo am problème boobu gis nekk tey jullit yi ñoo ko am jullit yi tey am na ñaari problème yoo xam ne benn bu ci nekk rek doy na ngir seen koom-koom bañ a baax benn bi mooy ñàkk nangoo liggéey bari na lool ci ndaw ñàkk nangoo liggéey tasaaroo na lool te nit ki dafa war a liggéey ki am kàttan dafa war a liggéey noonu sunu askan liggéeyuñu liggéeyuñu liggéey bi yëpp yëpp jaay ak jënd la boo jaaroon fii tey yoonu mbuur li nga gis ci ay terrain yoo xam ne dañ koo miire teg noonu yoo xam ne ay tool la tudd de yoo xam ne dañ koo war a bay su fekkoon ni terrain yooyu li tàmbalee jam ñaaju bu mbuur tey ñi ngi fi bay lépp lu doomu aadama soxla kon ñàkk mën naa bañ a am ci réew mi waaye nañuy def terrain bi dañ ko clôturer bàyyi noonu lu tax pour mu am ay at gën a cher koo ko jaay ko nit kooka nu muy def bàyyi waat ko fay at mu gën a cher mu jaay ko keneen ñi continué kon jaayante ak jënd la waaye du liggéey loolu nekkul développement boo xam ne mooy mooy ci la mooy doon liggéeyukaayu ay doomu aadama lu mel noonu daf fi kon nit ñi nangu ñëw liggéey bul yaakaar ne réewi tubaab yi nit ñi gaaw di def ay mbëkk di jéggi géej yi ak dem a ñëw ak ay ak ay yu kenn xamul bul defee ne ab xaalis dafaa nekk bu ñuy séddale boo xam ne bu nit rek am wala nga yaakaar ne gouvernement yi ci seen bopp ñoo leen di jox ay place ñuy liggéey déedéet ay doomu aadama yu am xaalis ñoo ko nekk dem ci àll bi di liggéey ñii ngi yor seen tool ñii yor seen càmm ñii yor seen nangam ñii yor seen nangam te amuñu loxo yu leen mën a taxawal ci liggéey boobu ki jóge Afrique nu muy def bu dikkee ca tool ya lay dem kooka di ko exploité muy liggéey mu di ko fay lam koy fay mu doon lu tuuti lu mu tuuti tuuti doy na ko moo moo tane la mu jóge woon su fekkoon ne borom alal yi ci réew bi ñoo ubbi yu mel noonu tey te kat ñi ngi fi moom moom ñi ngi fi moom su doon ñoo ubbi palaasu liggéeyukaay yu mag yooyu nga xam ne lu ci palaas tuuti tuuti day jël junni nit te bañ a séentu loolu ci ab gouvernement kese kon na nga ni lii ñuy dund tey duñ ko dund kon mën nañoo jàpp ne suñu askan moom wax dëgg yàlla ñi ngi dukk dukki di def loo xam ne day nit ki dana ci mën a am dépense am ak lu muy lekk waaye liggéey nag boo xam ne indi développement réew moom jullit yi dundaguñ beneen bi ci des mooy yàq ku liggéeyu boole bi yàq résultat ba lu muy jur yàq gi moom moom fu ñu ko takk weesu fu ñu ko takk weesu boo xooloon xew tey ci Sénégal lañ fay def luñ leen def lu ci xew yoo xam ne xew yu jëm ci wàllu social la lu bare bari la ci xeetu yàq danañ faree ak jur ci anam boo xam ne bokkut ak su fekkee lu lislaam santaane woon la bokkut ak la mu ko santaane woon danañ ko yàq ci ay ceeb ak i diw ak yoo xam ne askan wi aajo woon nañ ko ci benn bis loo xam ne lislaam santu leen nga bàyyi xewu social diggante ciit ak ngénte ak lu mel noonu nga ñëw ci yeneen yi nga xam ne nag lislaam da koo santaane wut sax nag faf nga xam ne benn day dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre biddaa dugal ma ca sarax ya trois jours yaag quarante jours yaag annuel ba saa bu at ma del si ñu delluwaat gàmmo yaag màggal yaag cant yaag yépp nga xam ne lenn lu ci ñëw lu nekk boo compté ci at mi ñaata lañ ci rey ci at mi ay nangami junni nag ngay lim ay nangami junni xar ngay lim ay nangami tani ceeb ngay lim te lenn lu ci nekk ci benn bés lañ koy xëy faagaagal mu jeex yu mel noonu bu amee ci am réew réew moo xam ne liggéey bi seen koom-koom demewul noonu yàq gi àgg foofu tam doon mbir yoo xam ne kenn ñemewul a toog di ko tudd itam maanaam même ñuy wax ci wàllu économie ak ci ay ñuy wax ba naan wàllu sabaski yeeg aj geeg yu mel noonu dañ ko war a organiser waat seet yu mel noonu yàq gi nekk fii mooy lu rëy li foofu la nekk mais ki toog ci këram ba am biyam bu mu aje dem di aji kooku beneen affaire la alali boppam la yor mais ki jëw jël koom-koomu réew mi nga xam ne mooy jur gi ñu yaakaaroon ngeen di ko jënd di participer di ko jënd di jënd boo jënd ci lu ma trente mille am na benn xew-xew boo xam ne trente mille teet yooyu naag naag moom la rey ci benn bis le populaire moo ko bind un million ci ay ganaar suñ bi loolu loolu réew mu mel noonu seen koom-koom fan lay fan lay taxawee ku mënta régler yooyu ba mu tegu ci aw yoon koom-koomu réew bi ci wàllu développement bu yaatu doo ko mën a régler loolu mooy li wér loolu mooy li kon am réew la nekk moo xam ne mu jafe lan mooy solution bi nag solu solution boo xam ne définitive lay nekk mu amut loo xam ne day mel ne ak njabar rek ñi ñëw ñu ne sotti na déedéet ab liggéey bu yàgg la boo xam ne mën naa ko bañ a fekk yow mën nga ko bañ a fekk keneen mën na ko bañ a fekk tàmbaliwaat di tabaxaat aw askan loolu lan aajowaat nuñ koy tabaxee ci ñaari mbir jàng ak yar jàngale yar jàngale li ma ci jublu mooy jàngal nit ñi bañ xam diine waxuma ñu mën a liifantu de xam alifun baaun taaun wala ñu mën boo leen joxe arab ñu mën koo liir wala ñu mën a taxaw di làkk arab waxe ma foofu waaye fi may waxe mooy nit ñu am fiq fi diin nit ñoo xam ne kenn mënatu leen a ndax ci diine ji boo nee diine seen alxuraan seen xel dem ci alxuraan ak sunna nit ñu mel noonu lañ soxla ci diine boo nee diine seen xel dem ci alquran ak sunna du dem feneen mooy lan nit koo xam ne dem na ba kenn mënatu koo nax ci pas-pasam boo indee shirk mu ne la lool bokkaale la ah, ah, du ma ci du ma nangu kenn mënatu a nax ci seen jaamu yàlla boo indee bidaa ñu ne loolu bokkut seen jikko ñu copier ko ci jikkoy saxaaba yi ñu mel ni lan soxla sun amee ñu mel noonu ci wàllu diine sun lépp dana defar waaye nag amul benn jaaruwaay boo xam ne mën nañ faa jaar ba régler lii nuy dund tey te delluwul ci wàllu diine parce que réew su ndaw lañ yor ñi fi nekk ñëpp daanaka ay bokk lañ li leen war a mën a boole bari na lool waaye diine moo leen tàqale te diine daa ñëwoon ngir boole kon nag dundalaat diine ji mu delluwaat ci alquran ak sunna loolu moo mën a boolewaat sunu askan mooy tax seen doole ji ñuy séentu ci ñoom ñu mën koo am ba luñ bëgg a tabax mën koo tabax bu proposition yi nga xam ne moom la imaam doon junj ñu mën koo def tabaxaat googu mooy jiitu su ko defee la lay tegu ci ñu ngi dem si waat di ko sant di sant moo leen mbokk yi di jéggalu ci guddal bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa ala